On va tester les poules, mais venez mais venez, on est entre nous, non On va tester les poules. waaw les boules. on va tester les boules. les boules les boules les boules. mais mais dites-nous. on va. les boules les boules. amul ah, ça fait plaisir amul ah, ay làkk tubaab dañoo bëgg a tester boules yi rek ah noonu moo ñu génne. and bi on va tester les boules là. on va tester j'ai un petit truc que j'aimerais que j'aimerais vous expliquer am na lu ndaw lu leen bëggoon expliquer regardez ça c'est un caméraman tellement dañuy jaxase télé bi alors la sécurité a besoin de moi oui kay kay nga wax ma kay kay kay lan laa lay jox sama caabi oto ah d'accord ok dafa soxla sama caabi oto gis ngeen télé bi a ah? <laughs> dañoo soxla xamul ni maa ngi en direct mais il a besoin de sama caabi oto joxuma ko <laughs> ndaw bul bu rëy pourtant neex naa Ah, c'est pour ça. D'accord. On va tester ça dehors. On va tester ça. Ça, c'est pourquoi? C'est pour demal toog. Alors, Oui, waxtaan. on peut s'asseoir. Pour toog la. Oui, bah on fait ah l'émission comme ça alors. Euh, pourquoi pas? Et là, vous êtes très à l'aise hein. Bi j'ai écarté tuuti. Normalement warul toogee C'est ça, il faut écarter. Oui.

parce que sérieux duñ ciy en fait sinon boo toogul boo ci toogul toog normal rek tem nga daanu malheureusement su nga sol jibi bonne journée. bonjour jibi. yow mu jàngal la. alo explique nous wax ñu bul yi nan lañ koy utiliser. ah da ngay ci toog. sama waa ji ak toog ci lii. toog kat la boo xam ne. c'est vrai tubaab yi yii la xam. ay toog yooyu yëpp la ñu xam. ah waay ay tam gisoo. toogala bente waaye toogkat baa ngi uy alfi bougé wul maître mën naa ci rouler sax dem ba fee dellu si waat papa. allez maintenant soyons sérieux Yeewu Gym tey c'est avec des boules expliquez-nous lan moo tax boules yii nii. oui Pape euh, hmm. One, two, three. Shake your ass, dance with me. One, two, three. Shake your ass, dance with me. One, two, three. Shake your ass. Ah, place Jum place a ko doon laajte. place Malibu dem ci banlieue bi. place euh, ñoo ko gisandoo. tey euh, li nga xamante ni mooy fitness bi ak bul yi euh, saf na trop waa Télétoubis xaw ma ndax yaa ngi koy fàttaliku ñoom Tinky Winky ñoom Lala donc.